may fàttali rek que xëyu ndaw ñi dafa am yeneen pàcc beneen pàcc bi mooy wàllu formation bi nga xamee ne ndaw ñi nga xam ni dëkk nañ Kër Massar dem nañ bind ci pôle emploi entrepreneuriat bu Kër Massar wax nañ ma téeméer ak ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróomi ndaw bindu woon nañ pour laaj formation ma xamal leen fii ci ñaar téeméer yooyu ak juróom ñett fukk ak juróom yi téeméer am nañ ci seen bon de formation ba fi ñuy wax ni tàmbale nañ seen formation pour am métier mais il bu am solo aussi ci programme bi convention nationale et employeur bi nga président de la république a décidé de ko ci ben milliard yóbbu ko ci fik milliard tax ñu enrôler ay ndaw ci entreprise pour am salaire mais aussi am xam-xam expérience pour mëna def seen ci Kër Massar am ci ak ak entreprise lim Électrique mooy Atone Technique Corporation mooy GIE booloo ak e ak ak ñi ngi ci entreprise entreprise di fay genn salaire état bi ci convention état employeur di leen fay genn je kon programme mi ngi dem ci biir réew mi mais ci Massar donc maa félicité yi nga signé contrat.